ah mais luñ mais boo xamee ñaar yëpp di nga xam ñaar yëpp alaaji kay. non non mais. nationale xam nga dañuy. déglu ko rek déglul ma ni amul national ak international. football la. phase nationale xam nga demi finale yi tey la woon. waaw kalu yi demoon phase nationale yi demoon si phase nationale yi demoon si phase nationale bi waaw dañ leen a yóbbu ba pare te ñoom ñëpp dañ leen a yóbbu ñu a def demi final far defuñu ko ñoom dañoo waroon def demi final ñaari finalistes yi xam nga si phase nationale fan ak fan ñooy ñëwaat bi euh, mhm. ñaari finalistes yi ñooy dem waaw mais ay say jàkkaarloo bu Kaolack bi demoon ak Efragal hmm. ñun ASC Jàkkaarloo moo ñu concerné parce que ASC Jàkkaarloo la ñu waroon amal match demi final léegi demi final ba amul ba pare ñu dem phase régionale bi loxo dara dara dara dara demi final bi lu ko am ah ñun convoqué woon nañu demi final Pascal yegg hmm. ñu añ dem stade fekk feuille de match fekk faye de table bi si buntu stade bi

sax ba ñëwee mu ne léegi dama leen koy jàppalaat mais naa leen jox seen déplacement lépp ñu wax moom ba ñu woon Cheikh Tidiane Gomis ba Cheikh Tidiane Gomis ba mu confirmé danañu jàppalaat ma si jox ñu remboursé ñu mais ñun jàppalu ñu ma si remboursé ñu ñu toog euh, euh, mu euh, ñu ne stage national ñu ne jàkkaarloo moo dem phase nationale léegi kon ana demi finale moom léegi lan moo tax maam bu demi final amul. maanaam ñoom final ñoom dem nañ ci phase ñoom dem nañ ci phase nationale. ñoom fu ngeen dem am ngeen doon stade boobu yéen. ñun stade ñun jox ñu jàng ñu déplacement. te match ba feere na ci lu gàtt gàtt gàtt presque six cent et quelques nit. waaye ñu ne ñu ñëw ba agsi fooy de match bi si stade bi fekk ba dee kay ba arbitre bi sax ba arbitre bi sax moom ñaari ñi moom gis nañ leen ñi si des moom gisuñu leen mais ñaari ñi moom léegi ñun defoon nañ sax recours pour laaj ba xam information lan moo tax parce que équipe bi dafa waroon a ñàkk te moo waroon a ñëw ñëwul mais recours ba su may waxee yow ni tontuwuñ ñi def nañ ko ñu war a fubalal ñoom ba tey ñëwuñ te ñoo dem phase nationale ñoo ñoom ñoo dem phase nationale ah ñooñu a ragal wutal leen teggi waaw yow leen a wutal teggi xam nañ ne buñ dalee si yéen duñ jàll loolu nag ñoom xam nañ ko ñoom xam naa fubal de xam naa ne lii Alaaji Sa Ndiogou Mbeng dina ko décortiquer leeralal leen yéen naka ngeen war a def ak xaj googu nga xamante ni gars yi lal nañ ko si mbirum fubal bi ñu laal li ko teg ko na leen dugal te dàmp leen dàmpaay bu am solo final la woon na ñor mais final bu ñu final la woon ñor boobu avant avant corona bi la woon. ah yéen final bu football ngeen fi ba final. waaye ñun ñu fi def final euh, départemental. déet yéen kat bu ngeen final la woon kon yow yëpp it seen yoon nekku seenu mën a football leen yóbbu kenn kenn jéggalu leen. ñun dañoo final départemental gagné ko war a fi qualifié régional demi final régional ñu def qualifié demi final régional. ñu naj leen boo boo gagné final régional ngay ñaari équipe yi final régional ñoom ñooy ànd dem phase nationale. xam naa ni daal Sa Ndiogou Mbengue bu si xamul dara moom soxna bu nañ woo gomis. alaaji mi ngi noonu euh, bokk na ci sport yi nga xam ni tamit man wax naa ni mooy sport bi ëpp violence jamono ji ci Sénégal ñu doon wax làmb ji waaye jamono ji ci wàllu sport li nga ciy dégg lu mel ni mën na koy waral équipe yoo xam ne bu dee waa ji li mu wax noonu la deme muy kat ñoom football nañ ba àgg fi ñu war a àgg waaye dañ leen a kale bàyyi kële mu jàll ñoom arrêté nañ leen waaye kële dem na ba ma ngay xëccu di dem final est-ce que loolu yi alaaji nag euh, yow nan nga jàngatee élément bi parce yoon man li ma ci xam daa bëriwut ji waxoon daa ne waaw ci kanam football war mbirum histoire la xam. xam nga Gomis mooy lijjanti mbirum caaxaan yi. waaw dèjà moom sax ki yoon na ci. nawetaan yi yeeg yooyu dégg nga dugal nañ ko ci sax nekkoon na ci. doon ko lijjanti ba la jël ko. waaye euh, waxul moo ko Gomis ko la jël de. war naa ñëw Gomis def na ci élément. waaw def na ci élément mais leeralu kon est-ce que problème bi Gomis suba duñ ko indi waroon na koo leeral. non da ngay bàyyi ba suba kon muy indi moo waroon a leeral yëf yi parce que euh, lii kii wax. amul ci football. amul. waaw moo tax bu fekkente ni. tëb nañ tëb parce que bu fekkee ne sanction am mais sanction peut-être mën na am wala leneen mais ñaari nit équipe yi war a daje hmm. match ba footballuñu ko ñu jékki-jékki tëbal kenn ki ne ko demal def final te demi-finale ba nekkut loolu amul ci football wa ilaa mu am raison forfait yeneen ak yoo xamante non nee na nee ñoom yàgg nañ leen def loolu la euh, euh, xam nga loolu moom mooy il faut ñu dégg beneen camp bi daal parce que kii li wax nii euh, maanaam xel munu ko nangu ah alaaji xel mënu ko nag wala yaa comprendre wax ni moo mënta ne quoi wala yaa mi ngi mel ni tey yow son bu ñu ne demi finale yaag euh, Ibrahima yéen na ko war a fubal Gomis mu ngi noonu moo la jël lépp yaa ngi ci jàmm yaa ngi yaa ngi ci émission Jommet direct ci émission bi mani <laughs> sama sama xarit bi sama doomu ndey temps bi jeex na boo ah, gaaw temps bi jeex na mais dafa am lu ma koy wax rek Gomis walaay maa la raw ma ne waxal ci affaire bi liigal la jël waay bàyyil gomis rek mu wax alaaji bàyyil jàmbur rek gomis non non xoolal xoolal waaw na wax léegi gomis dafa am benn élément bu ñu fi am bu jógee Kaolack ci ay problème mu match yoo xam ne tudd nañ ci sa tur te nee nañ ma defoon nga ci élément waaw léegi subaak jàmm damaa bëgg nga dikk auditeurs yi ni ñëw fii toog lii ma tegaat élément bi nga wax ñu la xew Kaolack ci ñaari kii yooyu équipe yooyu nu mu demee euh, mën naa nekk suba 9 suba. waaw wala ñu woo ko rek bu fekkee ne mu tëdd. waaw. waaw xanaa bu ma génnee petit déj petit déj maa ngi fay génne normal naan avant 9 h xaar fii ci Jomé dégg nga. waaw bu defee nga ñëw lijjanti problème boobu nga ñëw lijjanti problème bi parce que moo ko lëjal ah. jaajëf doom nday lëjal lëjaloo dara yow doom doom doom nday ku baax nga jaajëf. na ma bàyyi dana la bàyyi de ci nii wala ci nii. caaxaankat bu mag la <laughs> jaajëf <laughs> eh, jaajëf alaaji kon ba suba génnal. incha allah ci kàttanu ko. bala ma laa forfait génnal. acca mi ngi noonu jaajëf Mouhamed Badiane mbaa yaa ngi ci jàmm naka mbiri ku la jaayee Lacoste Lacoste waa